ñi ngi ñaan ñi ngi ñi ngi hmm. xam ne di nga defar sa testament doo nga dem. dëgg la moo tax ma gëm ne. c'est pas un choix. Hmm. c'est un refus hmm. ñu bàyyi la kàddu gi yow tamit nga introduire c'est pas très évident pour les femmes moment ñu ci bëri euh, en certains moments de la vie dañoo toog ba benn instant ñu ne jigéen di toog. di jiital sëy nekkatul priorité pour ñoom dañuy liggéey ba mën a defal seen bopp defal seen i waajur soogal dugg ci sëy euh, lu wóor la wala lu wóor a la est-ce que c'est toujours évident. Euh, sofia ñoo nga fa am solo tey ma tàmbalee ci ko ci ni ñu ko waxee rek mariage tardif yéex a sëy leen li du gënal boroom ndax ku sañoon fa say wajur jaar say nawle jaar fa nga jaar fa ndax loolu mooy dëgg. Mm-hmm. soo tolloo ci war a sëy sëyoo jaaxal nga sa bopp waaye jaaxal nga say bopp ndax dina indi beneen question te jikkooma wala lan moo ko téye ndax heure bi ku mel nii dara manqué wu ko waroon naa mën a sëy mhm. tey ñu avancé datu sëy maanaam xale daanañ ko maye ci fukki at ak ñett fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom ndax war koo teel a tàggat mu war a teel a ñeme jamono dem ba mbirum matérialiste dugg ci matérialisme dugg ci mooy bala ngaa sëy jàngal ba téye dara dina ci am solo. Mm-hmm. pour mën a jàppal ëllëg koo mën a àndal. Mm-hmm. Euh, yéex ngaa sëy ndax am nga loo àndal lu jëm ci wàllu rab jinne mbaa leneen muy gàllankoor ndono day dugg ndax cosaan dafa foo. Mm-hmm. ndax nit donc boo ko musaana jël muy doom yu góor war laa tàggu génn nga defar yaram yu wamutul am na yoo xam boo demee ba tey ji boo dikkee war koo pikiir sax am na lu ñuy teg nga jéggi ko pour tojol loolu pour mën a dugg ci loolu mm-hmm. ñu ne ndagam tànneef na kenn du tànn loolu ndax bala ngaa xam ni damay faral di wax ni sëy sa borom moo ko digle te na mu gënee nag ndax teel koo def dafa ëpp solo wër ni ko waraani ndax nag loo manqué wëri bu njëkk di nga takk soxna ñu wax la nooy àndeek moom tey soxlaatoo ko ndax lépp ngi ne fàng sa kanam nga jàkkaarloo moom ci hmm. téléphone mbaa ci télé hmm. loolu am ndax sëy moom kenn ñëwatuñ fi ngay jaar daa nga dajeeg say xarit dinaan la gaañ nii ñu la njëkk sëy fii ngay jaar fii ngay jaar léeg-léeg mu nga seet ki nga gën a yebanteel njëkk leen a sëy di la waraw yoon waaye tey boo duggee ci la xew ci internet beeg yooyu dootoo laaj kenn yaay sa nijaayi bopp yaay sa magi bopp yaay si léppi bopp mokkal nga ko kii ni mën na maa bañ a teel dugg ci sëy bu dee góor dong maa ngi koy ñam ci façon bi ma ko bëggee dëgg la ah, waaw waaw ndax dangaa posé na sa bopp góor gi toog fee ni ma ne damaa war a tekki jabar waaye li may bëgg amaguma ko kon man gis naa koo xam si bu ma yitteewoo sama bopp mu fajal ma ko kooku mën na cee yeex ñu ne ragal la di ragaloo ndax wolof nee na doomi mbottu ndox reyu ko bu tàngul nga bu tàngul waaye ma ne fi jant bi tàppee bu dul sedd da ndox ma dana suppi ko dana nugg mënta ñàkk ndax yow mi yor der toog ci naaj am na fooy toll di nga xam ne sa batterie plein na da ngay génn foofu ci gàttal kon bu fekkee ni da ngaa ragal ñaar am na ci boo nekkee ci kër di sëy mënoo may sara ku njëkk sa sa sa euh, nekk ci kër gi di fi sëy yow jigéen ñi ca kër ya ñu tuddee leen ak njëkk yooyu may ñu leen foo leen sëyee min ci di ko xool ba mu doon phénomène tas kër gi seen yaay ànd ca nga di ko gis boo dee ragal doo ci gaaw dugg ndax kenn yarewu la loolu am na ñoo xam kenn du leen toroxal boo leen jànnee rek ñàkk nga nga bëgg a sëy ci kër sëyaaleel sa jëkkër sëyaaleel sa yaay jëkkër muy goro yi sëyaaleel say rakki jëkkër sëyaal say magi jëkkër man ba may jàng Kébémer maa ngi nuyu sama tante yi su ma musaana tilim nii da ngay génne rek jox sa euh, euh, kala mu jox ay doomam ndax ñooy say jigéen fóotal la waaw tey boo duggee ci yi dem nañ ba yëf yi dafa maase léegi jigéen fóotalatul càmmiñam xam nga lu tax su ca nekkoon bu liggéey buy dem feneen tàmm na maanaam wulli nañ ko ba mu ba mu ñor maanaam dootul daw liggéey gi am na ñoo xam bu ñu dikkee ci kër ji fa sëy suñu xëyee bari nduggi ñëw yekk foo raxas bu raxaleen bu bëggee def une semaine dañuy toogaat xool seen bopp ñoom ñooy kan te fekk na la la ca dugal du am am waaye du lees waaye am na looy liggéey moo xool ne li liggéeyu ndey moo jëm ci pros nga jógee fii nii cëpp Italie amoo fa yaay amoo fa baay xëy na am fa tubaab bu la mat yaay jàppee la ni doom te doo xam loo ko defal am tubaab bu la jàppee baay doom te xamoo loo ko defal sa ndey ko liggéey ci dëkk bi. Hmm. sa baay liggéey ko fi ndax dama doon wax naan baat yooyu du ma gaaw a tàqale ko tekk tekki an ndey ju liggéey ak wërsëg bokku ndey ju liggéey nag day liggéeyal ay doomam ba fu ñu dem mën a fayu jigéen ña nekk ci kër ga nag di fat lebal seen jabari càmmiñ lool ëllëg buñ leen bëggee muur seen xel bu demee ci loolu duñu ko nangu ndax leb too fay ko li nga leb ngay fay ñu ne ndegam manque d'autorité la kon mu wàcc àndam man bu may wax fi positif laay wax waaye du ma waxee fi négatif ndax boo nekkee sa ndey ci kër mu ëpp sa bàyyi wërsëg di ko jàppale te ñun suñu référence mooy sallallahu alayhi wa yaay ay cha musta bëgg dara lu jaamu yàlla am na ci jamono ji jigéen ñoo xam ne ba tey bëgguñu dara lu dul seen borom kër di ca jaamu yàlla tapros ma jàpp ni soo xalaatee ni man mii war na maa am soxna sak maanu ak sak ragal foofu nañ ko dugg ndax góor a ngi ragal a takk jabar te mat ko tamat góor te mënta taxawaalu jigéen ne fi yàlla may ko wërsëg moom it lu tax mu ragal mooy gis na koo xam si borom këram dina ko bàyyi ginnaaw sax yor fi njaboot keneen dugg ca kër ga tas kër ga Mm-hmm. récupérer soxna si récupérer wërsëg ba est-ce que keneen kooku tamit bu dee ba ëllëg yàlla indi natt mënatuloo sëy mu dugg mm-hmm. dégg naa la pour wàccee nga wax ni euh, doom yeeg yooyu dina tiital jigéen léeg-léegi ndax doom ci ci sëy wërsëg la mm. ak waaw waaw waaye yàlla mi la ko xañ ñaari boo gisee yi ko amul doom dëgg yàlla daf la ko may wërsëg bu baax nag na nga seet li ma la wax nga dénk ma doom daa lañ ko rafetal ci kii sëy te mënta am doom xool bay jeex ñu dénk ko xale pour ngay mën a am koo yónni mu lay demal di la dikkal waaye ki daw responsabilité te nekk fa mu nekk yor fa cër di fa xëyee ko wàcc ndax am wërsëgam dem ba ne bëggul koo ko commandé boorewul ndax fa mu nekk ma ngi fay commandé góor ndax moo ko fa jiite te faaw mu jaar ca ndax wërsëgam ak liggéey ak respect contrat kon daal pour mën a tënk daal di la wax ni jigéen bu tolloo ci sëy na sëy wax nga ko di nga toll foo xam si am doom lay jafe parce que mbir bu waree ubbi ko ci dix huit ans vingt ans dem ba trente ans bu bëggee ubbi toog tànn ko ceeb ak ya fa ne ak i saana borom dana yéex a jur ba ci kanam. jërëjëf Seck benn. voilà yam. Seck dafa neex. kii c'est manière. sa waay nga ne la. xam naa xal bi moo xam naa xel bi moo bi moo sori man nga wax wala fële. xel bi moo waa Safia. danga sañse nag de. waaw merci. franchement. Euh, trop bien habillé. merci Safia sister kontaan naa trop. Mhm, danga sañse trop sax. Euh, mariage tardif lu libre choix ou peur d'autorité. Mhm. Hmm, libre choix. Euh, parce que sëy ñaar koy def. Mhm. Hmm. ku góor ak ku jigéen. te quatre cent dix mille hommes ñu ngi fii toog Sénégal. Hmm. bëgguñu takk jabar bëgguñu xam lu dul jabar lenn lañu bëgg di fo di continuer. très bien. muy loo xam ne dafa am fii Sénégal. dëgg la deuxième choix. ñu dem ba benn jamono. xale yu jigéen yi tamit. gis naka ñi nga xam ne lañ leen téye te amuñu dara. amuñu dara luñ jàpp fii Sénégal ah. Mhm. bu fekkee jigéen nga. Mhm. ngay sëy nit. Mhm. te amoo liggéey. amoo si loo jàpp. on te considère kër ga. on te considère donc moo tax. yenn xale yi ne man balaa may dugg si néegu sëy mhm. damay munal sama bopp. dëgg la te à juste titre noonu la. indépendante financière. foog nga indépendante. Mhm. pour ki nga xam ne ki nga nekkal. moo xam ne mu lay téye ça ne pas dire que femmes yi dañu indépendant mhm. munal seen bopp. que ñu autorité seen jëkkër di leen kilif c'est faux amul. waaw góor nangu dañ koy nangu. femmes yi nga xam ne. ñu ngi liggéey. di daan seen doole. dañuy def si kër gi. dañuy def seen doom. dañuy jàppale seen jëkkër mm. te loolu taxul ñu bañ a nangu autorité ki nga xam ne moo leen takk dëgg waaw beneen bi mm-hmm. mooy bu fekkee dañu nekk ci réew mm. ñu ne di dugal ci nopp xale yi mm. que sëy senegal am na noo xam ne dafa demee am na ku ko tudd mm-hmm. mooy fii booy sëy du da ngay sëyal sa ki nga ki nga nekkal rek ki la tax a jóg ki la tax a jóg mm-hmm. par force di nga seeg yaayam. Mhm. par force di nga seeg papam. Mhm. di nga seeg ay rakkam. di nga ñëpp. mbaa ñu complot muy loo xam ne si sañu culture ak si ñëpp ànd naa si mun na ne. Mhm. mais na nekk loo xam ne du doon dañ ko koy forcer. na nekk loo xam ne soo am la. mu xam ne fu mu jógee. bàyyi na fa pap bàyyi na fa yaay. fu mu nee jàppale papu yaayam papu jëkkëram ak yaay jëkkëram. coulement coow bañ a am. na ko def avec poli mu jeex mais kenn waru ko ko forcer. xale yu jigéen yu bari dañuy ne foofu. fekkee dañ ma bëgg a takk. Mm-hmm. am na ñuy xalaatee noonu. Mm-hmm. dañuy ut foo xam ne lañuy dem mais bu ma sëy seen kër. kër gaa ma. ku góor ki ne ko ah man su ma la takkee. da ngay ñëw sañu kër. ba pare ñu soog a dem kooku ne ko ah man de nag li ma bëgg a lii la. Mm-hmm. ñu acceptel tamit ku jigéen kooku choix am. parce que tamit xamul lan lay fekki fële si kër gi nga xam ne foofu la ko bëgg a yóbbu. donc su boobaa man damay accepter choix am ne ko kat. comme que da nga bëgg man ma takk la d' accord mun naa la yóbbu foo xam ne naa la fa yóbbu te du tax ma xuloog sama pap te du tax yow nga bañ a respecté sama pap respecté sama yaay mm. beneen bi problème bi mooy am na jigéen yoo xam ne dangay gis koo xam ne daf leen di bëgg a takk mu ne ko da nga sëy mu ne ko ah, am naa jabar mu ne ko man bugguma doon bugguma euh, nekk si polygame du ma wujj ok mm. bari na fi mm-hmm. jigéen yoo xam ne dañ lay ne carrément mm. man bugguma polygamie parce que li ma gis si polygamie franchement bu dee loolu rek jar na ma toog te sëy nekk na loo xam ne. Mhm. tamit nañ ko wax te dee. Mhm. choix la boo xam ne. Mhm. baax na si jigéen baax na si góor. mais bu fekkee tamit am na sa ay conditions yoo xam ne yow sa choix la. yaa ko si bëggul dugg. mais dañ la koy accepter. man dama la koy accepter dama lay accepter sa choix nga ne kat man kii bëgguma sëy ak moom parce que dafa am jabar wala kii bëgguma sëy ak moom parce que su ma sëy ak moom daf may yóbbu ay kër parents te man dama bëgg a nekk ak moom damay accepter sa choix. j'accepte tes choix. mais du ñu toog tamit ci Sénégal bi mm. gis nga jigéen yi jàng am seeni liggéey Safia mm. am seeni lépp mm. góoru Sénégal ñu bari dañ leen ragal lu tax ñu bari dañ leen ragal par peur ne mm-hmm. kii kat munal na boppam du ma ko munal dara mm-hmm. mm-hmm. ah, matoo responsable daw responsabilité loolu dafa am si dëkk bi ñu bari dañ leen ragal ne ah kii kii directrice de société fekk ndeysaan. mi ngi wër kër. ñëpp ñëpp ngi ne moom dafa ragal dem ñu yilif ko mi ngi wër jëkkër toog jàpp ñàmbur. merci gars yi di koy romb gauche à droite. Mm-hmm. ñu wax ak moom moom tam du dem si góor di koy ne kat. man dama la bëgg parce que loolu boo ko defee si yenn góor yi. dara nekku si sax mais boo ko defee si yenn góor yi dee. rafetlu ko bi donc loolu tamit bari na fii moo tax. jigéen ñi bari mm-hmm. Mm-hmm. mu am yeneen jigéen yoo xam ne góor yi dañ leen di ñoo labat. bëgg xam ne ñu avant ñuy sëy ñu bañ boobu mu daw keneen ñëwaat hmm. labat ko bëgg xam ne mu mel hmm. ñuy daw ñu ne waa kii lu tax du sëy kii lu tax bëggul dugg néegu sëy fekk xam na lu tax moom bëggul dugg néegu sëy hmm. parce que ñu muy taseel ñëpp c'est des bandits bu jaaxle baar essayé kooku kañ bu ko bañalee kenn bañal ko ñaar bañal ko ñett mun na toog bañal ko ñi xam ne ñoo fa jiitu ak ñeneen bari na si dëkk bi donc man jàpp ma ne jigéen ñi peur d'autorité moo tax ñu bañ a sëy mais dafa am loo xam ne tamit bu ñu la ko tegalee si taabal bi da koy nangu am na si ñoo xam ne tamit du ma ne ñëpp ñëpp ñëpp du ma tamit ne am na ñoo xam ne dañuy bañ ku leen di yilif mais bu fekkee da nga toog di waxtaan ak jigéen mm-hmm. di koy ne man su ma la takkee nii ngay def su ma la takkee dama lay jël yóbbu la sama kër maam fële Sibidoor su ma la takkee dama lay jël yow yaay ki affaire yooyu mais kooku dina xaw a tiit kon takk daal bu la nit ki takk dina xaw a tout li nga xam ne di ngay labat si lan ngeen di waxante ah. il faut que nga jox ko confiance boo xam ne ba pare ñu bàyyi naxante bi góoru Sénégal yi bari dañ lay wax lii buñ la takkee xamal ne loolu du góoru Sénégal yu bari dañ lay wax su ma la takkee lii ak lii ñu takk la ñu xam ne ba ne takk nañu jeudi 17 heures affaire yooyu pare nga si donc dafa nekk loo xam ne je crois que bu fekkee da ngay jigéen il faut que jox ko confiance boo xam ne dina tax mu ñeme mais am na noo xam ne booy waxee moom day ne kii kat ku mu commandé la bëgg donc waxtaan ba sa laban la mm. ak li nga xam ne nga nar a def ak moom dafa am importance pour ngeen wax si d'accord te boo leen si waxee je crois mm. ku nekk booy sëy comme ni ma ko waxee chaque fois du ay autorité bu fekkoon wàññi nañu sañu tàngat ñun ngóoru Sénégal ak sañu clifté yenn sens yi peut-être jigéen yi dinañ ibbi seen bunt tamit ne kat kii mën naa su ma takkee kat dinaa am fee kii su ma takkee dinañ waxtaan su ma takkee su ma ko tàggoo ne dama bëgg a dem seeti sama yaay mm. góor yu bari dañ lay takk ne la kii doo fi génn doo seeti sa sœur doo seeti kat kooku daa fiir alors léegi bu fekkee jigéen yi xam nañ loolu duñ toog jàpp seen yàmbur ba gis koo xam ne yàlla may na leen ko. ñu ànd ak moom sëy muy sëy boo xam ne baax na ba pare tamit ñu si ëpp sénégalais yi. société baa leen di topp ñoom am nañ seen choix xam ne ñu tax sëy yow tax sëyagoo yow tax kii ñu ne la bu jotee dinaa sëy. donc pourquoi sénégalais yi toog bu ñuy ne autorité ñu ne sëy fu mu jotee rek day am yàllaa ko fa bind. kon léegi dañu bëgg a jël autorité boobu. wala ñu gëm waxu yàlla ne yàllaa bindagul ne Mariétu dina sëy wala ñun dañu bëgg a gëm léegi ne que jigéen ñi sëyeguñu parce que dañu bañ autorité ban lañ siy jël ku sa waxtu jot nga dem. Mm. la donc na rafet. jërëjëf benn Oustaz Birama euh, ñu ngi lay déglu yow tamit nga introduire 22 heures passées de 53 minutes bu Oustaz Birama daanalee ñu jël leen yéen ci téléphone bi ngeen mën a wax aussi seen xalaat Oustaz ñu ngi lay déglu. soxna Sophie thème bi amati na solo. Mm. mais constat bi ma njëkk a def mooy bi ma dégloo mbokk yëpp wax ba pare. mooy thème bi libellé bi dama jàpp ne waroon nañ see yokk benn tomb. Mm. bu ñu waxee euh, libre choix la. Mm. wala peur de peur d' autorité. libre choix peur d' autorité wala boog volonté divine. parce que volonté divine bi mooy dëggal. Mm. kàddu yi mu fi dégg yëpp. dëggal oustaz. maam am na ñoo xam ne. ni yàlla waxee ne maa leen bind. ñenn ñi dinaa leen may am ay doom yu góor. ñenn ñi ma may leen ay doom yu jigéen. ñenn ñi ma may leen doom yu góor ak doom yu jigéen waaye ñenn ñi duñ am doom. dëgg noonu la yàlla bindee am na ñoo xam ne duñ dégg alxayri moo xam góor moo xam hmm. jigéen léegi nag buñ dellu si société bi société bi fi mu toll tey si sëy gu nga xam ne dafay tardé si ñenn ñi hmm. ndax bu ñu waxee tardé na mooy dañoo jàpp ne kat am na âge boo xam ne bu fa jigéen gi tollee toujours jigéen la ñuy joxoñ hmm. moo tax benn li mu dafa am solo ndax jigéen tu takki góor mooy takki bien sûr jigéen dana gis góor am ci moom yaakaar def politique ba jot ci moom loolu yàgg na am jigéen tamit dana gis góor am ci moom yaakaar def politique ba may ko xaritam. ba may ko mbokkam ba may ko parce que loolu yàgg na am. Mm-hmm. ci mag ñi. mag ñi mag ñi ci réew mi ak mag ñi nga xam ne am la ñuy wax ci magul islam. dëgg la yàgg na am boo xoolee diggante Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñu yaay.